ziar di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam xamna dañ koy doore ci wax olof rek suñ paré doga teunk ci nasara parce que bo gisé ñuy exprimer wu ci français moy collaborateur yi ñu nekk yi ñu sékkal liggéey bi suñ partenaire ñom ñoom dégguñu olof français rek ci lañ mëna wax ak ñom pour ñu dégg kon li Binta doon wax rek moy Joker Sénégal dafa ñëw fi ci Sénégal pour jàppale ndawi réew mi pour and ak ndawi réew mi liggéey ci lépp loo xamante ne mu ngi jëm ci wàllum bâtiment muy entrepreneur yi muy ouvrier yi ak ci domaine boo mën di nekk te yëngu ci chantier rek Joker du Sénégal dafa pare pour liggéey ak yow ci loolu la madame masda profité ci occasion bi ak ci partenariat bi nga xam ne am nañ ko suñu diggante ak moom ngir mën ñoo accompagner ci formation bi nga xam ne ci leen jëm le 12 le 13 et le 14 avril ci xarañteefam ak ci li nga xam ne mooy domaine am personnel muy sécurité personnelle mu pare pour indi indil ñu ci xam-xamam indil ñu ci contribution ba képp koo xamante ne teew nga ci formation ba rek nga mën cee jariñu euh, joker du Sénégal it ñëwut pour liggéey ak carreleurs yi kese déedéet képp koo xamante ne commerçant nga di yeewoo fii ci Touba ñoo ngi lay tàllal loxo ngir lan ngir nga mën a ñëw collaborer ak les carreleurs du Sénégal ñu mën a ànd ak joker du Sénégal ci domaine bi muy yëngu muy karo yi muy liggéey au niveau du Maroc di ko importer di ko indi fii ci Sénégal lépp luy safotage ci bâtiment ñu di ko soxla wala lépp loo xamante ne bii dàllu sécurité la wala mbaxana sécurité wala yére boo xamante ne nit da koy sol pour mën a protéger boppam ci wér-gu-yaram kon képp koo xamante ne yaa ngi nekk Touba doon commercant di yëngu ci wàllum bâtiment di jaay tout ce qui matériel de bâtiment ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw Joker pare na pour liggéey ak yow Joker ubbi na ay buntam pour pare ngeen jàppule ko dalal ko xam ne donte ki ko moom c'est une marocaine waaye bi mu ñëwee employé wut marocaine di ko liggéeyloo ay doomi réew mi la fi jël ñoo xam ne ci dëkk bi la ñu juddoo ci réew mi la ñu yaroo fi la ñu màggee fi teraanga ju ñu amit ci réew mi lañ koy bàyyi kon jàpp naa ne suñu leen jàppalee jàppale nañ suñuy doomi réew suñu leen dimbalee aussi dimbali nañ suñuy doomi réew ndax madame masda aussi est une boo xamante ne wax dëgg fa yàlla jafe lu ñu dara depuis ba ñu commencé collaborer ak moom di def ay démarches ba léegi wallahi yokkute rek lañ ciy jële ndam rek lañ ciy jële kon nañ leen ko jàppale te xam ne buñ ko jàppalee jàppale nañ suñu bopp moom nag formation bi pare na pour lépp loo xamante ne mën nañu koo jàppalee moralement physiquement financement incha allah rabi dina ci dem ba jeex ci kattanu yàlla ak mbaaxam dinañu ci jàppale dans tous les côtés am na loo xam ne it waxoon nañu ko te dinañ leen ko leeralaat fii muy accompagnement bi nga xam ne après formation bi moom pare na pour amal ñu ko ñun ñi nga xamante ne ñooy carreleurs yi Touba donte ñëpp mënuñoo dem it bu boobaa dinañ sélectionné ñi mën a donte carreleur lay doon ak ay quelques commerçants wala ay lay doon ak quelques carreleurs yi ñu dem ba Maroc découvrir yi la nga xamante ne mooy usine ba découvrir yi produit yi yam fay liggéey découvrir yi dem xool yi dem jàngiwaat ndax njàng du wees te njàng du doñ yéen ñiy mbokk commerçants yi nag bu leen jàpp ne mbir mi day jafe ci yéen déedéet dara jafe fi bu ñu waxtaanee incha allah rabbi dinañ trouver ay accords yu formidable ay accords yoo xam ne kenn ku nekk dina ci mën a gis boppam ngir mën a jël produit yi exposé ko ci seeni magasin di ko jaay ci dëkk bi dëkk bi mën a jëm kanam ndax dëkk bi kat bu passé mbirum Sénégal gi ñu bokk dëkk bi dafa doon dëkk boo xamante ne lépp lu ci waay def borom fay la ko ndax Serigne Touba liggéey na lu toll noonu ci kaw suuf kon bu yàlla defee Joker ñëw fii ci Sénégal fas yéenee ànd ak ñun liggéey rawatina nag bëgg koo doore ci dëkk bu tedd bii di kon yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun ñi fi nekk suñu ko ñaanalee suñu borom dina ko defal yokkute ndax borom bi liggéey na ko maa ngi tuub tey ci kàddu yi lu dëng ngeen jégal ma ko lu ci jubit ngeen xam ne ndimbalal suñu borom bi subhanahu wa taala